ana mbokk Tuuba ana waa kër ga alhamdulilah bàyyi wu loo dara naka yàlla na def maa ngi fi rek di soox rek waaw na nga def sedd bi nag dama doon sedd bi dama doon sedd na de sedd na lool sax baax na naaj waa ngi génn asalaamaaleykum sëriñ Ahmadou Dia Aminata sëriñ bi yaag bokki tali bi nga àndal ak sëriñ Amadou Dia te ñëpp sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara nee na xam na ni lii mu def gaa gënalul sëriñ bi waaye dafa am lu ko waral loo xam ne moo ëpp lii waaye dafa am lu ko waral jaarale ba mu agsi ci ñun ñoo ñaa ëpp lii ñamu jaarale mbir moomale ba mu agsi ci ñoom ñaar ñi it ñoo ëpp lii te moo di bokk ak bokk ba ko sunu borom bëggee wàcce ak bokk dafa jooy ñu laaj ko lana ko jooyloo ak bokk ni sama borom dama ragal nga wàcce ma ñu dog ma yàlla ne ak yàlla ne bokk moo ndax kon doo d'accord la nga kontaan ci su ma la wàccee ku la dog ma dog ko ku la jokkit ma jokk ko ba bis pénc ba bokk ne aha yàlla ne ko am na nga loolu garantil naa la ko wàccal nee na loolu bokk na ci li jur tànkam yiy jóge këram ñëw fii yàlla mooy def waaye kenn mënul dara nee na yàlla mooy def waaye kenn mënul dara lii mu jaarale ko feneen nee na ci digganteem ak kilifa gi toogit su ko neexul mu jaarale ko feneen waaye mu jaarale ko ci ay loxo. ba agsi ci suñu loxo way jur yu tedd yal na yàlla dolli ngërëmam ci ñoom. muy maam borom Touba ak mbokkam maam alxaaji Malick radiallahu anhuma ak ña leen jiitu. nee na ñooñu mu fi lim maam alxaaji Malick ak maam borom Touba ñoo ëpp lii mu def. nee na yàlla di doxal loolu. ba mbir yi togg ci loxol sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke radiyallahu anhu. su yeboo ni sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke moo jëkk sabab demam Touba moom mi. nee na yoon woo wale tubaab yi ci seen fiir te wax nañ ci lu ne. nee na li tax mu fabe waxtaan wi fii. bëgg àdduna yëpp dégg dafa bëgg àdduna yëpp dégg lii muy wax. ba ku fi jóge. ba ku fi jóge. foo dem. foo dem. suñu la nee nan la Abdoul Aziz def ak doomam ja sëtam ba. suñu nee la sëriñ Abdoul Aziz ba sëtam ba demee Tiwaawan nan la def ak moom. ngeen nettali ko. ngeen mën a nettali lii. teg ko ci yoon woo xam ni yàlla du leen ca topp dara. su ko defee nettali ba ngeen mën koo teg ci yoon wu leen yàlla dul topp dara. ne am na ñoo xam ne ñi gannaaw sëriñ Amat ja aminta ak njabootam am na ñoo xam ne lii waruñu ci xam dara. nee na ndax am na loo xam ne su dul sëriñ Amath Diamine ak njabootam ñooñu ñoom waruñoo xam ci lii dara. waaye dëgg moom. waaye dëgg nag moom. moo kawe ñépp moo kawee ñëpp. moom mag ñëpp. dëgg mag ñëpp. boobee dama toog ca ndakaaru ba am bés. nee na booba boobale itam dafa toogoon ca ndakaaru ba am bés. ma ne Samba Seck. mu ne góor gi Samba Seck. yal na ko yàlla yërëm. rahmatullahi alayhi. Malick gay Mbenn rek ca la bokk xaritu sëñ moo du woon la woon. ak góor gu ñuy wax Malick Gaye Mbenn nag xaritu sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké la woon lool. ma ñëw nekkoon ma ne leen dama bëgg a dem Touba. mu ne leen man day dama bëgg a dem Touba. booba daaru Quddoos fii mu agsi léegi àggagu fa. booba daaru Quddoos fii mu agsi ci yokk booba àggagu fa. fii mu toll sëñ Cheikh radiyallahu moo ko fàggale. xam ngeen daaru Quddoos ak lawteem fii mu toll sëriñ Cheikh Mbacké radiyallahu anhu moo ko fa yóbbu. waaye booba benn tabax rek nekk ci biti. waaye booba benn tabax rek a fa nekkoon. fa la ma sëriñ bi dalal. fa la ko sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké dalal. ba nga xamee ne toog naa ba guddi. nee na moom mii ba mu toogee nag ba guddi. mu ne naa ñëw nuyoo si. sëriñ Mouhamadul Moustapha ne ko na nga yegg si ñu nuyoo. maa ko fekk mi ngi sol curu cara. nee na mbaxanam curu cara la fekk sëriñ Moustapha sol ko. ak yëre yu weex. ak yére yu weex. bagaan yu rëy ngi ci kanam. ay bagaan yu rëy ngi ci kanamam. ay sin laa ci xaram ko wër. muy ay xara ki si la ci ñi xam affaire ndab. moo amee moo amee battu. Mouhamadou Serigne Mouhamadou Moustapha yore battu. di tibb ci bagaan yi. di tibb ci bagaan yi. di def ca yooyu bu mu ci. di def ci këll yi bu mu ci doon moo xam silla la moo xam xar. rëndlu. su ko defee bu tibbee ba noppi maasale ni rënd leen ñu rënd. ne fab leen yóbbu ca néeg sangam. su ko defee mu ne fab leen yóbbu néeg sangam. ba ca suba sa. nee na ba ca suba sa. mu ne ma dama bëgg nga dem Tindo di seet sa doom ja jafa nekk. dama bëgg nga yegg ba Tindo di seet sa doom jafa nekk. woo aarif loo na ko yàlla yërëm. góor gu ñuy wax aarif loo yal ko yàlla yërëm. woo kase. woo góor gu ñuy wax kase. yal na ko yàlla yërëm. yàlla ko yàlla yërëm. woo alaaji suram woo alaaji suram yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm ñu dem tindoo di fekk fa sëriñ Cheikh ñu ànd ak sëriñ bi dem tindoo di seeti sëriñ Cheikh Mbacké radiyallahu anhu nuyonteeg moom nuyonte fa ak moom jóge fa dellu si Touba jóge fa dellu si Touba ba muy bëgg a dem ba muy bëgg a dem nag mu ne ma dama bëgg nga jaar ndaam seet sa bàyyi sëriñ Abdourahman loo nga nuyu ko. sëriñ Mouhamadul Moustapha ne ko dama bëgg nga jaar ndaam seet sa bàyyi Abdourahman loo nuyu ko. soo demee Daaru Salaam nga nuyu sa baay Cheikh radiyallahu anhuma. boo demee Daaru Salaam it nga nuyu sa baay Cheikh radiyallahu anhuma. ma dégg ndigalam loolee def ko. nee mu dégg ndigalam loolee dem ci kilifa yooyee. baay Abdourahman Lo. nee góor gi Abdourahman Lo. ba ma ñëwee di ko nuyu. ba mu demee yeggee ci moom di ko nuyu. mu ngi sol xaftaanu kotanaat bu rëy te loxo yi yaatu. booba xaftaanu kotanaat la sol boo xam ne borom loxo yi yaatu yooyu la. àgg na ak man ci waxtaan. nee na ko rek góor gi Abdourahman loo àgg na ak moom ci waxtaan. ne ma maa ngi bokkeek sa baay ca cekkeen. ne ko maa ngi bokkeek sa baay alxaaji Malick ca cekkeen. ca Joosi Sekk. ca soxla suñu wax Joosi Sekk. mu ñaanal ñuy dem. ko defee góor gi Abdourahmane Lo nag daal di leen ñaanal ñu door a dem. ma dellu ma ñëw Daaru Salaam. mu ñëw Daaru Salaam. fekk fa sama baay Cheikh Anta radiyallahu taala anhu. fekk fa maam Cheikh Anta radiyallahu anhu. mi ngi sol mbaxana curu cara. moom it mbaxana curu cara la fekk mu sol ko. waaye weexul tàll am na yeneen yu. waaye mbaxana ma am na yu ca nekk daal ay daam daam weexul. tal mu toog ci lalu xanjar bu gudd bu rafet. mu ngi toog it ci lalu xanjar bu gudd te rafet. mu indi siis ne naa ci toog ma ne ko déedéet. nee na ñu mu ne nañ ko jox siis mu toog ci sëriñ bi nee na ma gàntal ne du ma ci toog. toog ca suuf. toog ci suuf. mu nuyoon teeg man. nee na mu nuyoon teeg moom. boobee commandant bu ñuy wax négrier. nee na booba commandant bu ñuy wax négrier. moo nekk Jurbel. moo nekk Jurbel. boobee ku ñuy wax jaaji baa ngi dund. nee na bu boobee ku ñuy wax jaaji baa ngi dund. boobu ba yëlli manel a ngi dund boobu yëlli manel Fall radiallahu anhu rahmatullahi alayhi mu ngi dund góor ñu daan wax sang caam ca ndakaaru woowee yoon ma nga fa boobee góor gu ñu wax sang caam ca ndakaaru fekke na fekk na ko fa ay nit dajaloo ay nit dajaloo ci yàqkat ci yàqkat yoon woowe la ñu def ci ba mu dugg ci loxol gouvernement yoon woowe ko commenté ba mu yegg ci loxol gouvernement français bi ba dem na ndar wuy ji leen nee na ba woo ko ndar moom mi ci kër gouverneur di Sénégal mu wuy ji. boobu maa ngi ànd ak Thierno Seydou. boobu mu ngi ànd ak Baye Seydou Nourou Tall. boobu lu ñuy wax bureau politique dafa am. nee na booba ca Ndar am na service bu ñu fa tuddee bureau politique moo yore woon affaire wu l'islam bi. ñu tuddee ko chef de bureau politique. nee na booba tubaab ba fa nekk mooy chef de bureau politique. ak ku ñuy wax ne mooy secrétaire général. ak ku ñuy wax ne mooy secrétaire général gouverneur ba. ñu toog na le. nee na ñu toog la ñu toog ñoom ñi ñu woo ñu toog nii. taabal dox suñu diggante. taabal dox seen diggante. tubaab ba ne lawet ne ma dégg na da demoon Touba. tubaab ba ne lawet ne ko léegi dañu dégg ne da demoon Touba. ma ne ko waaw. mais ma ne ko waaw waaw. mu ne ma loo fa doon wuti. mu ne ma loo fa doon wuti. ma ne ko sama bopp. ma ne ko sama bopp laa fa doon wuti. mu ne ma waaw lan nga waxanteel ñoom. mu ne ko waaw ba nga demee ci moo Modou Moustapha lan ngeen waxante. ma ne ko ndax su ingénieur su monseigneur jóge woon Dakar. mu ne ko ndax moo monseigneur bële Pape bële nekk Dakar bu fa jóge woon. ñëw fii ci ndar. ñëw fii ci ndar. dugg ak moromam mi fi nekk. dugg ak labbe bu mag bi nekk fii ci ndar. ci jàngu bii. ci biir jàngu catholique yi. ñu tëju wax seen soxla ndax su génnee daa ko laaj lu ngeen. ñu tëju wax seen soxla ndax bu génnee daa ko convoqué sa bureau bi naan ko loo doon wax. mu ne ma déedéet. nee na mu ne ko déedéet. ma ne ko kon téyel sa lam. mu ne ko kon téyel sa lam mi ci sama yooni Touba. mu ne ma dégg naa jox nañ la xaalis mu ne ko dégg naa it ba nga fa demee jox nañ la xaalis ma ne ko foofee lu ma fa fekk maa ko moom ko foofee lu ma fa fekk maa ko waaye terale na ma loo xam ne waaye nag ba ma demee day terale na ma loo xam ne moo ëpp du ak li ci biir moo ëpp àdduna ak li ci biiram loolee loolee ci laa am fitu ci laa am fitu nga représenté gouverneur fii nga représenté France toog fii mooy Abdoul Aziz Simple mooy Abdoul ngay joxanteek ay man man ay kaddu ngay joxanteeg man ay kaddu te loo ci waxte du dëgg te loo ci waxte du dëgg ma dajj ko sax ma weddi ko sànni càll ba. loolu yi dox na suma diggante nee na loolu yi dox na digganteem ak tubaab yi ci yoonam boobu mu seeti si Mouhamadou Moustapha. loolu dara gënu ko rëy. nee na loolu rëy na diggante bu yàgg la. soo gisee lii ma def sax gënalu la. nee na xam na ne lii mu def gënalu la. gënalu la. nee na gënalu la. waaye lu jaadu la rafet na war na. waaye nag rafet na rek jaadu na. dindiwul njureel gi suma dox. sama diggante nee na dindiwul njureel gi mu jur la. dindiwul bokk gi. dindiwul bokk gi. te nit ku nekk da ko jox cëram. te nit da nga koy jox cëram. fii suma ma fi ñëwee sama bopp laa fi fekk. te it na fii kër gi bu fi duggee boppam la fi fekk. Baara Sidi ñëw na ci man lu nekk dañ na ko bii. nee na Baara Ndiaye Sidi mii ñëw na ci moom lu ne daj na ko bii. ña nga yebal si woon démb lu nag daj nañ ko nee na ña nga yebal si woon démb wax dëgg daj nañu lu ne yërmande june ko wax nañ yërmande june yërëm nañ ko ko wax ko lii muy bëgg a nettali waxuma leen ko waaye dama ne leen rek danaa ñëw nee na moom lii muy bëgg a nettali waxu ko ndaw yooyu waaye nag nee na leen rek danaa ñëw tànk yi ma jox ak ñi ma àndal. nee tànk yii mu ñëwee fii ak ñi mu àndal. su fekkee ni lii ma nettali ma ko waral. su fekkee nit lii mu nettalee ko waral. wuutu ma ci taggu nit ñi ne pour ab doo baax. nee na wuutu ci taggu nit ñi ñu naan ab doo baax. te fasuma ko ci yéene wut. te it fasu ko ci yéene wut. kon li ma def. kon lii mu def. su yàgg su ko yàlla nangoo. su ko yàlla nangoo. la ma cay jële la mu cay jële moo ëpp àdduna ak li ci. moo ëpp àdduna ak li ci biiram. yàlla nañu ko ci yàlla defal. yàlla nañu ko ci yàlla defal. dikk gi yaa ko moom. nee na dikk gi yaa ko moom. won nit ñi it. nee na won nit ñi it. ñi féete ci suñu wàll. ñi féete ci suñu wàll. ak ñi féete ci sa wàllu maam. ak ci sa ñi féete ci sa wàllu maam. xam le xam le ne. ñi ci des mën nañu nekk ay wajur. ñi ci des day mën nañoo nekk ay wayjur. waaye ci at. ci at. waaye li nga xam ni moo jóge ci bay Serigne Touba. waaye la jóge ci maam borom Touba radiyallahu anhu. gone gi namp sax. gone gii namp sax kuy doxal xaqiqa kuy doxal xaqiqa dëgg-dëgg doonte la jigéen la doonte la jigéen nga ci dajal jox ko la ca moom te bàyyi ko ci bay jox ko la ca moom te bàyyi ko te bàyyi ko ci bay Sëriñ Tuuba te bàyyi ko ci maam borom Tuuba loolu moo waral yoon wi nee na looloo waral yoon wi taalib bokk bokk taalib yi. sëriñ bi nee na. bi dugg ci oto bi léegi. bi muy dugg léegi ci oto bi. maa ngi waxtaan ak i nit. mu ngi waxtaan ak i nit. ne leen marchandise yi ngeen gis. ne leen marchandise yi ngeen gis. mag ñëpp ay boutique lañ. mag ñëpp ay boutique lañ. waaye marchandise mi yàllaa ko moom. waaye marchandise mi yàllaa ko moom. ku nax boutique bi ba jënd marchandise ni lu ko borom dul jaay ku nax boutique bi ba këf marchandise mi ci njëg gu ko borom dul jaay it wala nga waga na euh, waga jaani ba yóbbu ko wala nga waga jaani ba yóbbu ko ci lu dul yëgu boutique bi ci lu dul boutique bi yëg la ki koy jaayloo ki koy jaayloo moom. bëtam ndar képp ne lépp lu moom loo xam ne bëtam ndar képp na fu marchandise am ne. loxoom joti na. loxoom na fépp. dana ko jëli. dana nel dab la ne la nangu ko. nga defe ne mi ngi ak yow. nga defe ne mi ngi yow. ñi nga àndal defe ne mi ngi yow. ñi nga àndal defe ne mi ngi ak yow. fekk na te fekk yóbbu na ko bu yàgg. na ngeen yaru. nee na ñun bokk taalibi yi na nu boo àndandoo yaru. bàyyi Serigne Touba. yàlla moo moom marchandise teg ko ci loxo rasulullah yi mu jox ko. nee na maam borom Touba yàlla fab marchandise am teg ko ci loxo rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko ko. bokkam yi fi nekk te ñu yaakaar leen noon la dem. nee na bokkam yi fi nekk te ñu yaakaar leen it la demee. jamono bii nag. nee na jamono jii na su mbubb mi sëriñ bi sol su rafetee. mbubb mu sëriñ bi sol bu rafetee. bala ngaa toog ne danaa laajte mbasañ bi fan la ko xottee. balaa toog bala ngaa toog yow taalibe bi ci sax ñaawal ne mbasañ bii de foog ma laaj bu ko bi xottee ma xotti. soo ko su la yàlla joxe njeg ci barkeem. su la yàlla joxe njëgg ci barkeem sëriñ bi. nga ne naa seet ku ko ñawal nañ ma. nga ne naa seet tayeeru sëriñ bi de moom may ñawal man tam. mu ñawal la. mu ñawal la. ngeen bokki mbubb. ngeen bokki mbubb. nga defee ne. nga defee ne affaire ba sotti na yaag moom benn wal amru ala xilaafi dalik te mbir ma nag demeewul noonu de na ngeen takk bu baax nee na nan takk bu baax jaamu yàlla bu baax yàlla bu baax topp ci moom bu baax topp ci moom bu baax sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Mansour mbokkam ma nee na sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbakke Bayal Xaaji Mansour si radiallahu anhu mbokkam ma seede na ko moog Serigne Hadi Touré seede yu rafet. seede na ko moog Serigne Hadi Touré radiyallahu anhum seede su rafet. Serigne Mansour daana wax ni ku ma waral réew mi. Baye El Hadj Mansour radiyallahu anhu daana wax ni ku ma waral réew mi. indil ma fi ku ma ñetteele ñaar ñi may bëgg wax. indil ma fi ku ma ñetteele ñaar ñi may bëgg a lim. lu ma am danaa la ko jox lu ma am danaa la ko jox. ñu ne ko kana. ñu ne ko kana kana. mu ne Serigne Modou Moustapha. mu ne Serigne Mouhamadou Moustapha. ak Serigne sëñ Moustapha radiyallahu anhu. nee na Baye Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu. bi fi sama bay Serigne Touba jógee. bi fi maam borom Touba radiyallahu anhu jógee. lu nekk daj na ko. lu ne daj na ko. waaye mu tëdd rek. waaye mu tëdd rek. am benn mag ne ko. am benn mag mas ni. sëriñ bi daal yaa ngi seetaan loo xam ne du jëm fu baax sëriñ bi day yaa ngi seetaan loo xam ne du jëm fu baax mu ne ko lan la mu ne ko lan la mu ne ko xam ñëpp xam nañ ne yaay taawu Baye Serigne mu ne ko ñëpp xam na ne yaay taawu maam borom Touba radiyallahu anhu ñëpp xam nañ ne yaay xalifa ñëpp xam nañ ne it yaa ko wuutu ci kaw suuf ñëpp jàpp nañ ne loo sant nguur gi ñu def ko ñëpp jàpp nañ ne it loo sant nguur gi ñu def ko kon nag li am wax ci kon nag wax ci mu ne ko foofu la sa xel tolloon. mu daal ne ki ki ko doon wax naan ko waaw sa xel moom foofu la tolloon. mu ne ko loolu la defee ne moo koy faj. mu ne ko ah loolu laa defee ne nga jëfandikoo ci ni nga toll rek koy faj. mu ne ko doole Sëriñ Tuuba bi doole yàlla. mu ne ko doole borom Tuuba ji doole yàlla. kenn du ci tooñ. kenn du ci tooñ. kenn du ci fayu. kenn du ci fayu. dañ ciy dimbale. dañ ciy dimbalee yal na la yàlla dimbale. nee na kon yal na la yàlla dimbale. bind nañ ne nit ku baax lu gën ci moom. nee na bind nañ ci téere yi ne nit ku baax la gën ci moom jikkoy garab. jikkoy garab. ñu laaj ko jikkoy garab mooy. ñu ne waaw jikkoy garab nu muy demee. mu ne lu mu gën a meññ. mu ne garab lu mu gën a meññ. gën a wàcc. bànqaas ya gën a liis wuti suuf. du dootu sonal ña ca bëgg. bu boobaa ku gàtt sax mën cee jot ba wëtti lekk. na la neex a witte. na la neex a witte. woowu melo yaa ngi ci yàlla na sax. woowu melo kon yaa ngi ci yàlla na koy na la ci yàlla saxal. nii nga àndeek mbokk yi itam yàlla na sax. nee na nii nga àndeek mbokk yi it yàlla wolof ñu jafe àndal lañu. wolof nag ñu jafe àndal na la yàlla dimbaleel yal na la yàlla dimbaleel boppam. guddal sa fan. guddal sa fan. mottali say mébét yëpp. mottali sa mébét yëpp. yi nga naal yëpp yal na la ci yàlla. yi nga naal yëpp yal na la ci yàlla dimbali. sooy ba nga dox ndànk rek. sooy boo nee na doxal ndànk rek. melo wi ku ko amee. melo wi ku ko amee. incha allah. incha allah. te boole woo ci leneen. te boole woo ci leneen. sooy bul jàq bul tiit. sooy boobu jàq bul tiit. bàyyi yàlla ak sa bopp. bàyyi yàlla